kilifaam yëpp ñu fi teew di dalal monsieur Bougane Gueye Dany di ko nuyu baax a baax a baax di nuyu suñu sœur bi Racky donc di la wax Bougane na dalal jàmm fii si ASC Gueule Tapée 2 donc ñëw nga ci ASC bi nga xam te ni tamit euh, sa philosophe bi ngay woote yaakaar naa ni fi la fekk baax gëm sa bopp parce que fii ASC bi lu commencé fële ba fële yëpp ñëpp a seen bopp ku nekk koo si gis am na si loo xam te ni mi ngi yëngat si loolu faalewuñ kenn ASC bi nag ASC Gueule Tapée 2 la gëm sa bopp moo tax 2014 dañoo dem final

situation mu defal ay ASM commune ñun gisaguñ suñu maire ba légui xamuñu ko gisuñu ko ba légui ni gëm sa bok moy taluñ ko loxo lepp luñu am moñ nga def 5000 francs lañu am regroupement jox raki nako togal ñu mu def ci 50000 bu ñame 5000 francs jox ko pour regroupement mom mu débrouiller def ñu 50000 mom aussi ku gëm bopam la motax buñu wowe ci jotaay bu mel dañu fekk ci ko suñu sœur la suñu grande sœur la lepp luñu wo ci ASM rek ñu ci ginaawam parce que limu defal ñun xam nañ ko limu jëre ñun xam nañ ko ñi ngi si ginnaawam tey ñi ngi si ginnaawam suba lépp lu mu bëgg fii ba suba ba ngoon rek am nañ seeg moom parce que xam nañ lu ñuy jëriñ ASC bi nag ginnaaw suba dañoo am match match bu am importance lañ am ñu nag sanc bi nga xam daaw ñu ñoo ko éliminé ginnaaw suba la quart final donc mu nekk match bu am importance ñi ngi ñaan mboolo bi fi teel ñëpp ñu jàppale ñu ñaanal ñu yàlla ñu gagné match bi incha allah rabbi demaat final cinquième fois dafi la te bëgg nañ ko tey nañ ko incha allah rabbi voilà ñu ngi lay ñaan